Assalamualaikum warahmatullah rahmatullah patriote yi ini leen di leen ziar seen frère la Cheikh Anne euh, ma ñëw yéen si li nga xamante ni waa kër jaamu jëlati nañ ko rek voilà bu ñu dem si ba des ñun nag duñu sonn duñu tàyyi parce que Ousmane Sonko mooy espoiru Afrique ken duñu ko yàqal lépp loo kami ni pare ngeen ko pour yakhrek rek ñun taxaw nañ pour defar ko duñ mës a sonn duñ mës a jot ñoo leen ëpp connexion ñoo leen ñoo leen gëna bëri safara te ay ndaw leen duñ sonu duñu tay ñi nga xam na dañoo nekk ci réew mi te nangu ñoo liggéey te système bi nga xamanteni mom lañu la nga xamanteni ni ñoom dañ leen lank bañ ne réew mi di soppé ñun bu ngeen sonu rek ñun duñu son ba kérok ñu jël sonku di ko ci si palais bi inshallah rabbi rabi leen euh, ngor su ñàkk jom tuti tuuti danaam ñoo xamni ni kastro lañ yàkkam ci mu daanu ci la ñuy ci daanu daanuwul duñ jóg fekk casserole yënguwul mënuñoo jóg dañ leen di tënk mais boo jëlee casserole dóor kàpp kàpp ñu ni bëri mais lu am la bu ko weddi neel man gisuma ko kenn demul Dakar maanduwul da nga naan man demuma Dakar kon dañuy ñaan président Ousmane Sonko ngir yàlla nay mars ba biir palais loolu ñun suñ yoon niw ci mais casserole yi moom ñu ngi ñaan nañ ko bàyyi baaxul ci réew te ñëpp wax nañ ci nag mais bi ciy wax li gën a garaaw mooy bu dee politique c'est da jàpp ni gars yi dañuy politique fekk yi li ñuy gis lañuy wax muy luy lor di luy yàq di luy gaañu di luy toj di luy tas loo xam ne bu tasee kenn du ko mën a defar mais tombé moo waral ay gaaf bii passé dañu tëgg concert casserole même mais hôpital Tivaouane tàkk ñaata nit ñàkk seen bakkan mais ñu tëggaat ko même pas dix jours mais ñu am choc boo xam ni cinquante et quelques génn ci àdduna. voilà Sénégal nag maanaam lii mooy problème mu Sénégal dëgg dëgg dëgg kii di wax nii xale bu ndaw la man mii di wax ak yéen buñ topp buñ xooloon ay atam xool samay at maa ko mag li mu war a def yow sëñ bi li nga war a def mooy nga dem liggéey nga dem liggéey simmi sa xaftaan bii dem fas yéene liggéey mais nekkewoo leen Ndakaaroo Tiwaawoo nag dëkk yi ni wër seen biir Sénégal lu dul nax jeeg ji xale yu jigéen ñi su ngeen demee ku ko leen dégg mu naan barke sëñ Babacar si ngeen dugg foofu ak seen xaftaan bu rëy bu ngeen ko naxut yegg si kawam nax ko jël li mu yor toog si tànt sa baay jël la yóbbu la daara nga jàngi alxuraan ba fees dell ak ni sa baay sonnee si yow nga ne da fasiyene don tag ko to yonenti bi wala to seigne babakar Si lolou nga wax ne mo nga bëgg don mo nga fasiyene don mais yow donoko parce que micro bi nga téyee temps ci temps ngay wax waxal ci seigne babakar doo ko waxal ci mam El malik Malick ko waxal ci alquran kërim li yalla bind lepp ci alquran mën nga see wax ba dee doo ko nga bayyi fa lol tok ci tante bi nan Ousmane Sonko ci ay fenni kesse di fen ba jël ay fen soppi ko def ko deug waye nak xam ngeen ne Ousmane Sonko bu yàlla defee mu jël réew mi tàllal loxo ak nax gi ngeen nekk dana jeex ndax fu mu toll ni mbir mi daa doxatul ndax bu ngeen demee si tànt yi naan xaala laaw xaala rasul jigéen ñi yeeg góor ñi duñ leen déglu léegi nag lan ngeen def da ngeen di wax Ousmane Sonko bu ngeen wax Ousmane Sonko ngeen am bës gis naa beneen beneen sëriñu tariyaax bu génnaat encore naan di waat si Serigne Touba naan Ousmane Sonko bu arrêté wu lii wax waxi kasaw kasawam ba bàyyi dem yow yéen a ñàkk jom yéen seen bàyyi réccu na lu mu leen juree ndax jàng arxuraan nu mu méttee sa baay jur la yóbbu la jàngal la arxuraan jàngal la xam-xam nga war a dem si tànt di wax yàlla wax yónnent bi ngay wax Ousmane Sonko ay ay ay ay ay concert casserole si ay fen waaye yéen batalo Joola bu muy suux ana Ousmane Sonko ah yow sëñ bi yow ana yàlla ana li la yàlla li la sa baay jàngal jàngal jàngal sa daara ja ana yàlla kan mooy rey ku dul yàlla ak yónnent yow ana Macky Sall miy dem di xërëm di def ay affaire yu kenn xamul di jël avion di dem Inde ñu wane ko publiquement muy def ay xërëmam yow foo nekk lan moo tax Sénégal bëri ay naafeq moom a jaaxal lii nag li ko waral mooy système bi bilaay Ousmane Sonko yaay ki yaay ñàkk bàjjen Sénégal waaye nag am nga ay rak am nga ay patriote am nga say morom am nga say rak yoo xam ne dañoo taxaw tem ne Sénégal dana soppeeku. te duñu ci masa gi fab te joxooñu benn deureum lijjanti wuñu Ousmane Sonko xam nga ñu lijeenti rew mi fam ko jëmee bu ko jëlee fam ko wara yob ngeen ne dee rew mi du dem rew mi moy kuy dem for force seen yi ngeen nekk ci tandi nak nak ndax gi ku ngeen dégg mu am barke sëñ Babacar si nga sol xaftaan bu rëy xam nga seen xaftaan yi simi leen ko ngeen dem bay ah yow de waron nga dem si domi mam Abdou Aziz si domi mam Abdou Aziz si daa baax ñu jangal la aduna ndax mam Abdou moy sen bay waye ñu ci aduna bi di liggey di bay di dundé sey yow ya ñak jom ak sa xaftaan bu reebi sen xaftaan yi lañ leen di wo motax ñu leen di woy ay serigne ay yu kenn xam li sa bay def ci yow jang loola alcorane nga jang alcorane nga alcorane mu nga sey wax ba dé do ko do do do do ci joggé han ah? yeen li ngeen wara wax kay li andi concert casserole li ngeen wara wax lan moko andi han ah? ab ab da fay am démocratie nit ñi di manifester wu buñ amé lu leen nakari dem def seen manifestation manifestation interdit yi mosoo leen see wax ñoy teggi plate ba dugg ci ndox mi bu neex yaal ñoy tuddu teggi teggi plate ba dugg fa boîte vocale yeen ana musique si bir senegal da ngeen ci wax ana sangara si bir senegal da ngeen ci wax ana tiaga ci si senegal da ngeen ci wax jàngkatam alxuraan loolu la fofu la wara dem ak euh, euh, ñamuy waxal bo jangé alquran ba sa bobu fess neena li téré yalla yi mëno leen ko jéxal li ngeen wara wax bari na mais ku ci bëgg tek Ousmane Sonko ngay attaque ku ci bëgg ñu dégg la Ousmane Sonko ngay attaquer waye Ousmane Sonko bu néewee ay badjan néewu mbokk dé yéna a jom manifestation yi Macky Sall di interdit du ngeen ci wax Macky Sall bu autoriser won euh, manifestation est-ce que teug palaat dana am Ousmane Sonko ñu ngi xaar mu woté waat teug bol ngeb yoon bu woté waatee teug bol ay klaxon klaxonu terrain la ñuy wut di ko rang ranga yeen seen yaay bi ñuy teug luñu len bol rang tangi ñu rang tangi rang tangi ba seen yaay dug seen kër bay ñàkk jom simmi leen seen xaftaan yi ngeen dem liggéeyi koo si gis muy def émission mu ngay dawal numéro téléphone naan woo ko mooy Serigne diw xam naa lii xam naa lii bu ngeen xamoon dara coronavirus bi ngeen ko jële si réew mi dana fa dugg bu ngeen xamoon dara accident bi dana am bu ngeen xamoon dara leneen la leneen dana am si réew mi ah alxuraan da nga koy jàng pour jëfandikoo ko jëfandikoo ko jëfandikoo ko si lu baax mais doo ko jëfandikoo si ay fen ma ñëw nag si Macky Sall mi nga xam ne moom moo leen jiite moo leen dirigé moo moo leen financé ngeen pour def coalition attaqué Ousmane Sonko pour concert euh, casserole bu mu amati Macky Sall moomu li mu war a réglé si réew mi bëri na accident bii problème de état la na ko réglé problème am la. parce que Mansour Faye tey warutoon continuer tey jii di doon ministre affaire euh, ministre de transport ah Aliou Sall fii lañ ko fi ji suñuy suñuy milliards mu naan suñu pétrole Macky Sall dem euh, grande mosquée commencé di ko défendre ah Diouf Sarr fii la fii la liir yooyu nga wax ci waawoon bi ñu dee Diouf Sarr est-ce que dafa démissionné démissionné wul ah Macky Sall ba mu nee jaale ji leen dama leen wax damaa yàkkamti ñi bi gaaw leen si li ngeen di wax bi ngeen wax ak Macky Sall si lu tax keroog waxoo yow foo ne woon Diouf Sarr Macky Sall dàqul ko parce que dafa ko sanctionné ndax dafa am ay onze liir bébé yu dee foofu sa Tivaouane Macky Sall dafa dàq Diouf saar parce que la moo tax mu dàq ko mooy Diouf Sarr dafa perte fa mu fa nga xam ne fa lay wootee muy yoof dañ ko faa gagné ah nga ñëw si Mansour ginnaaw boo si jëlee bu bu bu bu bu tali bi kan moo yor tali bi ku dul ku dul Mansour Faye Mansour Faye moomu tey du ma ànd ak Macky Sall di di di di tappale ay tappale ànd ak moom ne si wetam lu tax amul courage découragé gouvernement Macky Sall moom euh, amul amul amul amul kii nu mu tuddati amul euh, euh, démissionné lu tax amul courage dem démissionné la bëgg a wax gouvernement boo xam ne kenn démissionné yéen daal Ousmane Sonko lu waaye yëkkati rek teg si kaw li ngeen war a wax bëri na gis naa accident bi ku ne wax na si kon yéen Sénégal man tey laay soog a yëg ne Sénégal ñi fi nekk ñëpp yëg nañ problème yi am Sénégal gis naa jaal yi gis naa jooy yi gis naa lu ne waaye yéen ñi ñu doon rey si mois de mars ak li fi xew ba léegi Macky Sall di tëj di rey fan la nit ñi ne kon daal Sénégal ñëpp ngi dégg li xew man de dama jàppoon ne nit ñi dégguñu lu xew waaye si accident bi laa gis lettre bu ne si accident bi laa gis discours bu ne ndekete réew mi ñi ñu doon wax naan sax dañoo dugg xal wa ndekete ñu ngi seen ruq di xool di gis di ñu seetaan ñun askan wi ñun seen taalibe ñun seen i doom ñun sénégalais yi ngeen ne tekk di ñuy seetaan Macky di ñuy rey di ñuy toroxal benn accident am ñese dee yàlla na leen yàlla yërëm yéen ñëpp ñeen génn ñii naan Ousmane Sonko euh, euh, euh, conseil casserole ana taalibe yi deewoon lakk ba jeex ana Ousmane Sonko booba ana conseil casserole ñooy conseil casserole ba mu ñu neex wax leen si sàngara si réew mi wax leen si caga ji si réew mi wax leen détour détournement bi si réew mi bari ci démb la ñu jël suñu ñaata ñaata ñaata milliards moom Mansour Faye moo ko lekk. lépp amul lenn scandale buy am bu Sénégal bu Mansour Faye bokkut fii la ay doom jël ay nag yu jël ay milliards ne mu ne def ko si turam mu ne doomam moo ko moom. ana ana Farba ana Cheikh Omar Anne Ñebbe réew moo xam ne kenn du wax dëgg réew mi. liko wër lepp liko sentiré fu tolni ay fene kessela mané ma bu waxul deug wax fen nafiq di Sénégal dafa wara jeex bàyyi leen Ousmane Sonko defu len dara 2024 gisuma lu koy téré donc candidat inshallah allahu rabbi Ousmane Sonko jotewul ak kenn bu ñu waxee nag ñun dañoo réew réewuñu parce que suñu Ousmane Sonko suñu avenir la dama né focus 2024 la wax xalé yi dem leen ngeen uti carte d'identité daas yéen kay li ngeen wara wax moy 3e mandat bi Macky Sall wara wote la fa wara dé bu Macky Sall déclarer déclarer 3e mandat li nga xamanteni ni mën nañ ci dé mën na ëpp fouf li dé ci accident bobu non té yeen nga tok diko sétat kon yeen yeg ngeen né Macky Sall mu ngi waaj a laaj euh, troisième mandat da ngeen na tànqam lu nit ñi rek yeg ngeen né Macky Sall mu ngi interdit manifestation da ngeen di tànqam lu nit ñi rek parce que comme que yeg ngeen accident bi yeg ngeen lepp dama faute weer na ku weer ya mom waaw ku si gis sa bopp rek ñii wax waxuma ak ñoom ñi ne tekk te waxuñ laa wax ak ñoom kuy wax si suuf ak kuy wax si kaw nag ñun ku wax ñu gis ku ku jëf ñu gis. comme yéen dégg ngeen conseil casserole ah dégg ngeen ko ah yéen dégg yëg ngeen ne dëkk bi accident am na fi kon yéen yëg ngeen ne Macky Sall la ngi waaj a laaj wax leen si loolu wax leen si troisième candidature Macky sàll bi nga xamante ni yëg yëg ngeen ne euh, comploteurs yaa ngi si biir dëkk bi. yëg ngeen ne ay audio génn génn na déglu ngeen audio yéen ñëpp xam ngeen la xew fu mu toll si réew mi réewum naa feq soo waxee dëgg ñu ne la xale bi dafa yare di xale bi amul yar jàng nañ de duñu ay jaahit de waaye suñuy ñun ndaw ñi jël nañ suñuy responsabilité bi wallaahi lancim duñu reculer duñu dellu ginnaaw ba keroog Ousmane Sonko si pale bi am na nag ay sëriñ yu diiñ yoo xamante ni ñu ngi yàlla ñu ngi doon sëriñ ba tey ñu ngi doon sëriñ man damaa sama benn xarit boo xam ne taalibe moom Abdou Aziz si la doomu maam Abdou dafa wax ju rëy wax ju rafet ci Sénégal mu won ma ko ma ne ko lii du kaa doomu maam Abdou Aziz si taxaw taxawaayu baayam du kaa doom ja baay ja Macky Sall dugg na si kër sëriñ sëpp jaxas jaxasi Serigne si yàq leen waaye nag alhamdulilah Macky wan nga ñu Serigne si wan nga ñu foog feeg Serigne yi wan nga ñu tappalekat yi wan nga ñu nitu intérêt yi ñay doon Serigne a ngi doon Serigne ba léegi waaye nag euh, alhamdulilah. kat yeb danañ feeñ balad 2024 focus 2024 xalé yi dem len outil carte d'identité bu bu leen reculer mukk li sen dessin la serigne su ndaw si di soli xaftaan di joxe sen numéro téléphone dama ne bu len si wote bu len wo ki nga serigne bu njëkk da ngay dem mu ñaanal la ne la xolal loy wéxal bu nga xam kilo dugub wala ñaari pompiteer wala ñaari soble wala ñaari ya xam wala nga yëkkati téeméer jox ko wala nga yëkkati lu sa xol sét nga jox mais serigne buy def duggal ay numéro téléphone am si si écran naan diw dana gagné diw na lii gis nga Sénégal coupe d' Afrique coupe du ay sëriñ lañ jëloon duñ ko si avion bi luñ si jëlee dara waaye nag euh, président de la république tappale réewum tappale fen doon dëgg si biir réew ma dëgg moo nañ ko génne Sénégal sànni ko géej kenn dootu ko wax Ousmane Sonko lu yoonam si accident Ousmane lu yoonam si ay bébé yu dee non Sénégal vraiment mon pays va mal wax leen si ñi nga xam ne ñu leen tëj si kaso bi réew moo xamante ni yow chaque jour boo yeewoo rek am na waaye ñun ne duñ taay comme ni ma leen ko waxee rek am nañ connexion am nañ jot am nañ euh, temps bi xam nañ li ñuy wax te duñu nelaw te ragaluñu te duñu rëkkale kaso yi kaso kaso yi moom mënoo leen ko feesal da ngeen di tëj di tijji rek da ngeen di rey ku ngeen rey nag si mbir mi àjjana la jëm te gis naa ne bàyyi ngeen Cheikh Omar Diagne ak Abdou Karim Gueye ak Pape Alé Niang waaye bàyyiwu leen bépp bàyyiwu leen kenn koo xam ne rek militant Pastef la Pastef mooy seen problème Pastef daal mooy moom daal moo amul bàjjen Sénégal bokkal Pastef rek yow criminel Sénégal nag yéen laay waxal problème mu Sénégal problème mu Macky Sall la lu ngeen mësul gis si dëkk bi ngeen di gis fu mu toll nii bu amee ku ngeen war a ku ngeen war a arrêté Macky Sall la bu ngeen ko arrêté wut nag fañ jëm moom ñax du fa sax salaamaaleykum wa rahmatullah